na maqaama aussi wax DG wu bañ mu jël ay fiches de parrainage jox ko ñeneen ñi imam ban jàkk Sénat am na am na loolu am na prérogative am damay laaj rek waaw cinq ah juróomi prérogative la boobu ca la bokk ah boobu ca la bokk waaw ah. Ah, ok léegi ma ma ma kon kay le <laughs> jàngat nga ci am parce que justice dañ ko war a wóolu waaye mhm. xaw na doy war daal waaw man de ñetti jàngat rek laa ciy def mhm. ñetti point yu gàtt bi ci njëkk mooy DG ak euh, mbokk mi nga xam ne siiw na fan yi lool muy ca Ndella ca la faal man dama jàpp ne moom ak waa DG yëpp ay victimes lañu. Mhm. te Thiendella Fall. waaw ah, ay victimes lañu wax dëgg yàlla te Sénat wane na ne ñoom ay victimes lañu dañ leen di sant rek ñuy def. Mhm. dañ leen di sant rek ñuy def nañ wax ak ki leen di sant loolu mooy dëgg xam nga euh, benn heureur rek laa d'accord ne moom la waa DG def. Mhm. mooy di jéem a lay li ñuy def di ko utal ay loi ñoom loolu mooy seen erreur ñoom dañu waroon wax saa waay suñuy kilifa ñoo nu sant ne Sonko ko kaay mu toog nga ne ko sëriñ jotuñu ndigal pour jox la fichier bi demal jàpp sama njàmbur. Mhm. parce loolu moo am bu ñu leen joxul ndigal du ñu dem. Mhm. xam nga est-ce que du danger loolu euh, ah, lu mu leen wax. damaa jot ay ndigal ci kaw. ñu wax ne bu ma leen ko jox loolu la njëkk a wax mu jëkk la dugg ci jéem koo lay. Mhm. loolu mooy erreur am lay dama lay wax li xew man boo ne ma diw bu ñëwee bu mu la jox boo ñëwee ma ne la saa mun naa aw ma ndigalu jox la fichier demal. Mhm. yow nag boo demee seetal noo ko waxee mais man lii laa lay wax. Mhm. victime la man dama jàpp ne erreur mooy di jéem lay li muy def. du ma mhm. justifier dara. li ma kilifa gi laa lay wax jàpp sama njaamur après nga réglé ko ak moom. ok konoon tey gars yi bàyyi nañ ko fi nekk ci ministère de l' intérieur wala ñu nekk ci président de la république. xam nga El Hadj Abdou radiyallahu anhu yal ko yàlla gërëm dafa mës a léeb benn léeb boo xam ne tey moo xew ci Sénat ak DGA nga baal ma tuuti léeb bi da ak gaynde ak lëg dañoo ànd di rëbbi nee na ñu dox ci àll bi ba yàgg ñu jàpp benn nag nee na ñu dénk bukki ni ko téyal ah tey yoon wi nar naa neex de ñu dawaat ba yàgg ñu jàpp bëy dugalaan ne ko ah jiital te yoon wi dina neex de nee na ñu demaat ba yàgg ñu jàpp ganaar dénk bukki waaw ñu dénk ko yépp ñu waaxu ba yëgsi ci ker gi ñu ah tey nag yoon wi duum na am nañ ganaar am nañ bëy am nañ nag Mhm. léegi nag gaynde ne léegi dama bëggoon ñu séddale ko léegi yow bukki noo xalaatee ñu séddale mbir mi ni mu demee ginaar gi bëy wi euh, nag wi bukki gaynde lëg mooy njomboor mhm. bukki yëkkati loxoom daal ne man daal li ma gis mbir mi séddale na boppam yow gaynde comme yaay kilifa gi jëlal nag wi man maa ci topp ma jël bëy bi lëg moo gën a tuuti na jël ginaar gi affaire bi jeex na mhm. nee na gaynde arrière rek toj noppi till ba lex yi néew yi mu bàyyi ko mu toog daan ne lëkk yow àtteel ma lii bi yow noo gisee séddale bi mu ne ko affaire bi daal séddale na boppam léegi yow da ngay jël ginaar gi nga ndekkee ko jël bëy bi añee ko jël nag bi reeree ko mu jeex mu jox ko loxo na ko ay Banjul foo déggee si séddale bu rafet bi yaa mën a séddale. <laughs> foo jàngee si séddale bii. mu ne ko lexu bukki bii moom mu ko jàngal. lexam bu néew bi lexam bu néew bi mooy Sénat. Mhm. dafa wane leçon. que DGE bu defoon nii nii lañ koy def ab lexe ma cay topp. moo tax gis nga waa Sénat bi ñu jógee ba joxe fichier ba la leen ca fekk mbéj mu leen football ñoom ñëpp loolu la DGE xam. def la lëg defoon xool lexu bukki bii xam ne boo waxee li mu wax lii ko ciy fekk mhm. mu def ko mu def ko léegi nag loolu man jàpp naa ne baaxul ci am réew ah, wax dëgg yàlla mhm. am réew du noonu am réew dafay dox ci ay loi ak i règle ay texte mooy tënk ay doomu mais du bëgg-bëgg doomu aadama man damay xëy tey kontaan bu ma xëy mat mhm. su fekkee su ma kontaanee dëkk bi neex bu ma meree dëkk bi mer sëñ bi du sotti dañ bu neexee bu naqaree ma xam ne lii moo fi nekk bi may jeexalee mooy président la man dama jàpp ne am na lu mu war a seetaat lu bëri parce que dama seetlu ñaari yoon dafay wax ci pénc mi wax bu rëy yàlla nattu ko ci. c'est ça. 2020 mm-hmm. 31 décembre 2020 maa ngi koy jàpp dafa toog ñu di ko laaj ba di ko laaj ci ñu ñuy jàpp di leen tëj am ñoo xam ne buñ leen jàppee branlo la ñuy am après ñu bàyyi leen ñu dem président mu ne mais man bu fekkee am na ku ñu war a jàpp te gis ne kii buñ ko jàppee fit na day am. Mm-hmm. mu ne mais est-ce que procureur dafay joxe ndigal ñu jàpp ko mooy tontu de mu ne déedéet day woo kilifa. Mm-hmm. ministre de la justice mhm. nee na kooku est-ce que day jël décision déedéet day contacter président de la république. Mhm. man su ma xamee ni kii buñ ko jàppee fitna am ba bakkan des ci est-ce que damay nangu ñu def ko du ma ko nangu parce que duma ma seetaan ñuy teg dëkk bi. Mhm. peut-être moom mooy wax de dinaa seet beneen yoon bu ma jaaree mais du ma nangu ñu tëj ko. fitna di am. am même pas 4 mois problème Ousmane Sonko taxaw ci kanam. nekk fitna gu rëy ñëpp naan un un un. terewul daa forcé jusqu'au bout bakkan yu des ma gis ne wax boobu dafa mel ni nattu la bu ko yàlla won bi ci des barki démb bi muy wax ne bàyyi naa mu ne bokk na ci li may def lii ma dese ci yoon bi nii 4 mois 6 mois yi ma dese danaa def effort ba décision justice bu génn fii ci réew mi dina ko appuyer ak tous les moyens yi état am ba ñu appliquer ko mm-hmm. far décision bu ñëw contre ñoom mu sëgg affaire bi man dama jàpp ne loolu dafa mel ni nattu yàlla la yoo xam ne mm-hmm. dal na ko ñaari pour man nag loolu ay leçon la Mm-hmm. yoo xam ne na koy jàng parce que affaire bi du taxaw rek di tari de mm-hmm. appliqué bi lañ soxla mm-hmm. ah, na gëmm rek te appliqué li yàlla dogal xam ne loolu la li ci des ñu ngi ñaan ah, ah, Sénégal am nga yaakaar ne Ousmane Sonko mi dana bokk ak ak li li li mu leen li ñëpp xam nga man nag affaire u man dama ko tënkul ci règle yi nit ñi di def nii nii nii non man dama gëm ne affaire u élection ci loxo yàlla la nekk gis nga bu yàlla tuddee na day bokk pexe buñ mën a def ba dernier mm. minute. mënoo ko kenn mënu koo tere bokk su yàlla tuddee ne du bokk it. luñ ko ubbil du bokk. Mm. moo tax ma jàpp ne lu pexe yi rëy rëy nañuy bàyyi xel yàlla. Mm-hmm. du ñooy mm-hmm. fi yegg bu ñu waxantee dëgg. parce que fi mu nekk ne affaire yi gi dafa jaxasoo complètement trop loolu nga xam ne pexe yi moo réer moo tax nañ bàyyi xel yàlla ah, daal euh, euh, mm-hmm. euh, looy tàggatoo Cheikh Tidiane waa di am mbégte kontante euh, ci toog ak euh, kilifa yu mel nii ci xam-xam yi fi génn mm-hmm. rawatina lépp tegu ci njëriñu réew mi waaye it euh, tegu aussi tamit ci siraatal mustaqim mm-hmm. ñu ngi ñaanal suñu xalifa généraux yépp yàlla may leen fan wu gudd ak wér bañ gën a mën a joowante réew mi hmm. di ñaan aussi tamit euh, di ñaanal jàngu bi muy suñu mbokki chrétien yi hmm. di ñaan aussi tamit mbooleem kuñ bokk ak réew mi rek yàlla defal la jàmm hmm. waaye nag kër gi it yàlla teel ko boppam aar ko ba mu gën di mën a ñooñal askanu Sénégal li nga xam ne nii moom la war di wax ci réewam te jàmm rek di ko ci fekk